a Amara Diouf asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaar mbooleem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal tey nag ñu ñëw ci sunu doomu sénégalais bii nekk fële ca Algérie nekk ci équipe nationalu Sénégal bi muy wane foofu jaloore yu am solo xale bi nag fi mu toll nii daa jobmal waa adduna bi léegi nag journaliste yi nga xam ne ni moom daanaka yaa ma gën a xam ñoom dañuy saytu suñuy te kenn du saytu seeni joueur nee nañ daal xale bii ëppal na 17 ans mu nekk xale boo xam ne xëy na yàlla teel a def ci moom li nekk ci moom voilà euh, loolu nag bu fekkee ñoom ci leen bëgg a sukkandiku ndax xam nga chaque jour li may wax rek euh, européens yi moom. ñoom dañuy jàpp ne maanaam ñoom lu ñu wax rek dëgg la ñun nag moom lu ñu wax du noonu quoi voilà léegi ñun bi ñu tànnee ay xale lañu yóbbu tax xale bi yaakaar naa ne passeport am ak carte d'identité am ak yëppam ku ko xool xam ne kii xale la waaw yaakaar naa ne moom fi mu toll ni moom jàpp naa ne wax dëgg yàlla xale bi moom daf leen a jommal rek moo tax ñu nii nag xale bi nag dafa romb 17 ans xale bi nag li muy def ci terrain moom wax dëgg yàlla da ngay da da naan noo mais nag loolu du dara man daal jàpp naa ne xale la comme xale yëpp léegi dañoo toll ci àdduna boo xam ne nag kenn ku nekk da ngay défendre léegi nag waa fédération bi tamit dañoo war a am fulla ak fayda am nañ euh, site internet am nañ lépp manqué woon dara am nañ ay moyens nañuy taxaw di défendre comme européens yi ni ñuy défendre seen doomi yooyu tey jii maanaam ñoom ñoom seen jëm bopp si seen seen moyen de 17 ans yi boo leen di xool danga nga naan ñi est que weesu loolu quoi voilà mais léegi yaakaar naa ne football ak yenn machines yi nga xam ne ci leen xoole sa wàllu yax ak ya ci ajoog yooyu yëpp euh, ba xam yow sa as dëppoo naag as bi ñu soxla loolu léegi euh, machines yi ñu yor mooy détecte loolu am na euh, te jàpp naa ne wax dëgg yàlla xale yii nii ku leen xool xam ne ay xale lañ. moom kay xanaa day xale boo xam ne rek yàlla ko teel a defal lii mu def te xam xale yi nag dañoo précoce nag dañoo précoce de parce que kii bu nee di 17 ans ak taxawaay beeg xam nga loolu tamit wax di yàlla man nga cee xam nga am ak dut daal waaw tubaab yi tamit foofu lañ toll. en daal xale bi wax dëgg yàlla euh, macha allah daal mi ngi def bon kaan bu rëy fële ca Algérie. européens yi nag ñu ngi wax ci moom voilà naan weesool na weesu leen weesu la ne 17 ans maanaam weesu na 17 ans voilà léegi nag euh, toll nañ ci monde boo xam ne léegi kenn dootul baal kenn waaw sunu joueurs yi dañ leen di défendre comme ñoom ni ñuy défendre seen joueur communication képp la monde digital lañ toll yaakaar naa ne réseau yi international adduna bi partout daal le monde léegi kenn dootul seetaan kenn di dal sa kaw voilà xale bi xale la dàqu ñu ñu wax. ñu ñoo communité Sénégal rek lañ ragal ci wàllu communiquer kan nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ni saa su ñu waxee jëmale ci suñu xale yi ñu wax delloo leen ko rek parce que loolu dong moo koy faj voilà parce que français yi chaque jour ñu génne fi benn joueur boo xam ni kii 15 ans la am wala 16 ans la mi ngi football gis nga joueur Barcelone boobu nekk ca euh, Barça.